salaamaaleykum mbokk yi Sénégal nag li ñu xam ci ku laago mooy sànni la jàpp ni mënoo dara wax ju ni mel nag ku ñu naan Hamdy Diop dinañ na ko ba mu set wicc ndax moom de dafa jël ñoo xam ne dégguñu waxuñu maanaam ay muuma jàngal leen alxuraan bañ mokkal ko am ci koo xam ne sax ñetti kaamil la bind mbokk yi lii moo yéene lii tey ngeen joomi incha allah maa ngi sax yéen ñëpp ngeen partagé ko te ngeen laay ko topp leen ma tey ngeen joome bu soobee yàlla néew leen di ngeen joomee ci joome di gën joom fii mooy daaree ci Touba xale yi ngeen di gis ñu toog kenn mënu cee wax waaye kenn mënu cee dégg te dañ leen di jàngal fii alxuraan ba ñu mokkal toppal vidéo bi ngir nga xam naka lañ leen di jàngalee alxuraan. jëmm jooju may nuyool nag moom lañ naan Serigne Habib Diop moom nag baayam jii di sëriñ xam di Diop moo ko jàngal alxuraanul karim ba mu mokkal ko waaye yamu ci de mbokk yi da caa toftal bind ñetti kaamili alxuraan mbokk yi ñetti kaamili alxuraan xolal mu ngi noonu xolal rek mi ni mu yànjee te rafet te ki ko bind de déggut waaye tamit waxut te mooy Serigne xabib Diop lu yéeme mbokk yi. ñoom nag ni ñuy jàngee alxuraanul karim mooy da nga leen di wan liñ war a mokkal soo leen ko wanee boo paree topp ca di leen saytu ndax ñoom seenum njàng ci xool ci li ñuy jàng ci la dépendre. gannaaw bu buñ ko xoolee ab diir nag ba heure tari jot sëriñ bi da leen woo ngir ñu ñëw tari ñoom nag nii la ñuy taree mbokk yi mooy dañ koy bindaat te duñ ko xool xoola kooku rek mi ngi tari sóoratul waaqiya da koy bind ba mu yegg bu paree sëriñ bi xool ko ba xam amul benn yàq su xoolee ni gisu ci benn yàq mu xam ni kii nag mokkal na lañ ko doon jàngal mu daal di koy joxaat beneen bind bu bees soxna soosu ngeen gis tamit moom tamit mu ngi noonu di tari gis nga ko noonu noonu lay taree day bind liñ ko jàngaloon gannaaw ba mu wanee ginnaaw téere bi du ko xool bu ko bindee ba mu yegg nag gisoo ko sëñ bi xool bu dee amul benn yàq nag mu xam ne kii mokkal na ko jërë ngeen jëf gis nga tey nag mbokk yi maa koy téyeel ba xam amul dara lu mu yàq waaw jël jëlaale na tomb ca saasa mu tomb ca saasa rek mu ñoom nag palaat lañ daan jël def ci suuf bu ñuy tari di bind di effacé jëmm ju baax ju nekk Amérique moo leen jëndal adduwaa ci mucc ayib yi ngir mu gën yombal liggéey bi yàlla na ko yàlla fay ci barkeb alxuraanul karim ñoom nag képp koo ci laaj xam na fu mu yem am na ñoo xam ne ñaari bind la ñuy jël am na ñoo xam ne ñett am na ñoo xam ne nag juróomi bind la ñuy jël sëriñ Habib Diop nag léegi mooy jàngal xale yi gannaaw ba ko bàyyam jàngalee alxuraan ba mu mokkal ko bind ñetti kaamil jël benn bi jox ko sëñ Muntaxa xool leen loxo bi rek ni mu rafetee mbokk yi léegi nag dañ koy cux dañuy bind rek mu daal di continuer seetaan leen waskuru maam da koo cux mu dem ngeen gis ngeen ko noonu waskurullah rek lañ bind mu continuer moom di bind te xoolu ko fenn kon loolu mooy wane ne ku ko mokkal la mu ngi noonu di ko bind waaye it ci mbindin mu rafet mbokk yi tilkar rusul daal di koy bàyyi gis ngeen ko noonu muy continuer di ko bind waaye bind mu rafet te amul benn yàq bu ci am loo ko cuq rek bind mu daal bind continuer mu doon lu yéeme mbokk yi lii daal sëñ bi mbir liggéey bu rafet la moom na ne cuq naa ko mu war waaye ci bind la laa ilaha illallah gis ngeen ko noonu mi ngi tari waaye mbind mi xool leen ni mu rafetee mbokk yi waaye di bind te du ko xool bind ba mu yegg mu maas ko nii de la ñuy taree ñoom alquran xam nga ni mokkal gi mokkal gu wér la mokkal ba xam niñ koy bindee mbokk yi macha allah sëriñ Hamdi Diop sa liggéey bi kawe na lool yal na la yàlla barkeel ak sa njaboot barke alquranu karim sa doom ji nag di Habib Diop incha allah sunu concours nafar bi ñu jagleel ñi génnewoon woon ci daara ji nekk ci métier moom lañ ko fas yéene dara jaale ci novembre bii di ñëw incha allah bii passé Mouhamed Tine la woon waaye bii di ñëw incha allah sëriñ Habib Diop lay doon leen di laaj ci commentaire yi kan leen gën a yéem ci diggante sëriñ Habib Diop mi ak Mouhamed Tine jërë ngeen jëf mbokk yi xol yépp sedd na ñii ngay gis ñëpp kenn mënu cee wax waaye mbokk yi kenn mënu cee dégg te ñu ngi nii di góor góor di jàng alquran yow mi yàlla teral teraa ngay nopp teral la teraa ngay làmmiñ looy xaar ci jàng alquran du mat a bàyyi xel mbokk yi jërë ngeen jëf